mënuñoo ñàkk mënuñoo toog te waxuñu ci ki nga xam ne tey mooy suñu lépp tey di faramaaraan bi muy Wally Ballago Seck macha allah. tey euh, man mooy sama fierté mooy sama lépp tey moom laay tiitaroo tey. Mm-hmm. macha allah mu sagal ma fu nekk muy wali Ballago Seck le centre du peuple le soir du peuple. Mm-hmm. Euh, le golden boy de la musique sénégalaise macha allah. tey tey soo Wally macha allah tey ñu gis euh, mu dem fële ca Gambie. Euh, def fa trois dates macha allah adda yëpp di ko suivre macha allah mu wàcce Gambie ba zéro te toog Gambie tourné li nga xam ne mooy clip biir Gambie mais li ko ñor mooy drapeau vert du muy dëkkam mais dafa bàyyi léppam def ko ñukk ñëw euh, ci def vidéo ne jam ñaajo laa di xaar yow tam nga ñëw loolu tey muy sa doomu moo tax mun la moom laa jaaxale jeexale mu def vidéo de jam ñaajo laa lay xaar euh, ñaanal lions yi ñëw lions yi gagné ak kan xaritam Faramaren bi muy karama lan xamal dox dama dama koy nuyu balaa daraa xew maa ngi koy nuyu Waly Seck mais Waly moo am ndam Karamba amul ndam de Waly Seck moo am ndam Faramare ni ñoo am ndam bi ma egg si stade bi lu leen wax man Karamba fara man Karamba Faramare bi sama bal dama koy dugal farfos day dugg farfos la Waly moo am ndam Waly Seck moo am ndam parce que lu mu leen wax moom moo génne jam ñaajo laa leen di xaar. jam ñaajo laa leen xaar. bi muy waaw bi mu leen waree xaar jam ñaajo kan la xamoon ko waali xaar jam ñaajo. jam ñaajo laa lay xaar moo tax nag ma xool ne sama artiste. comme moom moo génne woon lii ni jam ñaajo laa lay xaar bi mu demee jam ñaajo moom moo ko génne bi mu demee jam ñaajo war a yëngal bi man sama artiste Wally seek gars yi xeex ko. jam ñaajo duñ fa jël ñaari defet manul ne c'est impossible. bi mu demee war a yëngal jam ñaajo gars yi xeex ko ba la mu bëggoon amul. yaa ngi dégg kon bu demee ba loolu jàll ñi naari def li ñuy def war a ñëw jam ñaajo moo tax man faramaareen karambaale messi day jinne ma fippu. bëgg faj mer googu moo tax ma dem jam ñaajo ne leen jamo jam ñaajo laa indi xaar te yamu si de. mii naa jam ñaajo yëpp. ku fa jéem a te waa li gis lu bon. sama deret la miina naa jam ñaa jëpp képp ku fa jéemalati waali billaay wallaay tallaay nga gis lu garaaw waali sekk képp ku ko fa jéemalati di nga gis lu garaaw ana sëriñ yi ne woon stade bi day laaj sarax ana sëriñ yi ko waxee woon ana sëriñ yi ana sëriñ yi ne woon stade bi Macky Sall stade bi ji ana sëriñ yi day laaj sarax ana sarax yi sin première match damaa yëngal mbaali inigéré ko victoire si stade bi ana sarax yi non lii bokkul sarax lii pour gën a xabtal ji ay jinne lañ doon wax man damaa ñëw gën a xabtal jinne yi damaa ñëw gën a xabtal jinne yi jinne xam mu gisee deret say sëriñ yooyu sëriñ yooyu ay ay stade bi day day génn ñu génn ñu ay sarax xabtal jinne yi stade bi dañ ne foog ñu sarax stade man damaa ñëw tuur sama deret pour jinne yi gën a say ma gën a say parce que maay seen baay la Messi le roi di ballon Karamba le Messi le roi le roi du ballon mais sëriñ yooyu sëriñ yi doon dox euh, sarax dañ ne woon waaw dañ ne woon jam ñaajo stade bi ay sarax la ani sarax yi moo jaaxal ana sarax yi man saraxew moo sama loxo bii de sama loxo bi dama tuur deret pour xaptal jinne ñu say say giñ say moo tax bal bi dugg trois minutes say giñ say moo tax bal bi dugg trois minutes su duggul woon si trois minutes yi si trente trois minutes yi lay dugg mais bal bi si duggul woon si 3 minutes 33 minutes lay dugg. bii bu duggul woon si 3 minutes yi si 33 minutes lay dugg waaw. de Messi. moo tax man leen. man ku ma wax naari firi mooy seen sarax non man yooyu samay bagage football la basé wu ko si loolu mais waxuma lool de. tey daam lu ma jaaxal tey daam benn naar bu ma oo ma saaga. waaw tey tey benn naar bu ma oo ma saaga saaga yi bon damaa décor sama téléphone rek munu ma karamba yaa nangam tan sa nday yaa tànk lu tax naar. <laughs> barke Serigne Fallou tey daam benn naar bu ma oo di saaga te numéro numéro Sénégal de xaw ma ban dë xaw ma seen dëkk la xaw ma daf maa ma karamba yaa nangam tan sa nday. bu ma la gisatee nga dugg TikTok wala YouTube wax rek ma nangam taan sa ndey man ko sëñ bi man lan laa la def mu ne ma yow yaa xam ma garaawul quoi waaw li ma ko xañ moo bari après ñu xuloo ma saaga ko saaga yu ñaaw mais man bàyyi faal laa quoi après ma wàcce ko ma ne ko su dee dama laa tooñ jéggal ma te yàlla tax parce que peut-être karamba defet bi leen teg moo leen metti xam ma ñu woo ma di ma saaga ay naar xam ma man leen jéggal leen ma yàlla tax xam nga wàcce naa leen ba jàmm man si jàmm laay dox jàmm si la lëpp xaj xam nga kaf nañ ree nañ ba mu fàtte loolu ma ne ko nag garaawul yow sama xarit ngay doon. Mm-hmm. billaahi daa mujj di jooy. dafa mujj di jooy. te lépp lan la sama réew moo tax yeneen réew yi di ma saaga te lu tax mënuñu maa xam. émission bi sonn nga instant nga bi yoon liggéey bi de li may tàggoo mooy Macky Sall woo ma jëndal ma oto bon bugguma bugg man bugguma damay man man Macky Sall man damaa fuuy man bugguma ay oto cinq bugguma xam la moo tax da nga man bugguma ay oto cinq millions bugguma oto dix million comme Wally Seck oto dan cent millions quatre deux man bugguma oto cinq millions bugguma oto dix millions Macky Sall yow waxal le Messi sa élément bu jaayante yàlla moo yor lépp ku jaayante ba coupe ñëw Sénégal ak li may sacrifier sama bopp man Macky Sall yow laay waxal. Macky Sall yow laay waxal sama message bi boo ko jotee wala ñi la jege buñ ko jotee nañ ko jàllale ba nga jot ko. wala sama papa Matar Ba père Matar Ba yaa ngi may dégg ah. Matar Ba borom Fatick yaay sam papa yaay sama lépp. yaay sama papa yaay sama lépp mais dama lay jàll benn message de sëriñ boo musa xam si àdduna muy yor kurus di liggéey maa ko man xale bu ndaw xoola bopp bi père. papa nga. dégg nga ko yaay sama kilifa yaay sama lépp sa doom ji daf maa bëgg maa ngi koy ziar. fan sa karambala. daf maa bëgg maa ngi koy ziar di ko ziar bu wér a wér a wér mais li ma lay wax nag maa ngi leen di maa ngi leen di ñëpp maa ngi leen di félicité di ñëpp. félicité Sénégal képp ku képp koo xamante ni tey sama bopp laa koy njëkkee parce que sénégalais laa kam ñëpp maa ngi félicité sama bopp félicité gars yi yëpp di leen wax félicitation di leen ñaanal yokku ba yëg ko lépp nit man ren yàlla na nga man déwén lu ëpp loolu yàlla na doomu aadama yi di wér man de su ma sañoon karamba du am benn malaat bu ñëw sama kër ma lay faj barke Serigne Fallou Mbacké parce que bëgguma waxewu ma ko si di kii wala bëgguma kenn ku feebar su ma soñoon du ma am kenn ku feebar bay ñëw ma lay faj kon yal na yàlla saafara ñëpp ñi feebar ñëpp wér ñi nekk si hôpital yi yal na leen yàlla dimbali ñu wér maa ngi nuyu gaa yi nekk si kaso bi maa ngi nuyu ñi nekk si kaso bi na leen gaa yi di geesu maa ngi nuyu ñi nekk si kaso bi na leen gaa yi di geesu état bi nay geesu ñu nekk si kaso bi nañuy geesu ñu nekk si kaso bi état bi nay geesu ñu nekk si kaso bi te képp ku fa nekk maa ngi ñaan yàlla lépp li nga xamante ni yaa koy dund na la ko yàlla tegge ba nga dem ba génn mën a demaat say mbokk si jàmm te lépp lu la fa yóbbu woon nga bañ ko defaat ba bañ faa dem yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm réew mi nañ jàppale gaa yi parce que ay nit ñu ngi may woo ñoo xam ne ay daara lañ yor ay daara xale ñoo xam ne ay daara lañ yor fu xale yi war a jàngi alxuraan mm-hmm. xam ay problème mu ñi ay problème mu seng lañ am ñi ay problème mu kii te ñu ngi sóoraale balaa nawet bee ñëw dama bëgg ñooñu état bi mu dimbali leen parce que ñooñu ñooy réew mi ëllëg nañ leen dimbali parce que man tey aw ma dara fu ma ñooñu mën a oowee di ma dis seen soxla an état bi nañ leen dimbali nañ dimbali gars yi parce que Sénégal am nañ ko nañ dimbali taalibe yi dimbali ñi si kaso bi dimbali ñi si hôpital bi am na ñoo xam ne tey ñu ngi hôpital ñu ngi faju yoruñ sax luñ jënde ordonnance na leen gars yi di dimbali nañuy dimbali ñëpp si kàttanu yàlla suma ma sañoon kenn du feebar loolu amoon message bu may jàllale sama gars yi kon wasalaam. ok macha kon yaakaar naa li ñu amoon tey ci Karamba rek ci waxtaan bi nga xam ne doon waxtaan ci équipe nationale tey macha allah di jox rek rendez-vous man moom xam nga euh, Idali Faramaren mënul toog te waxul ci waxul ci Wally Ballago Seck parce que euh, mooy sama lépp yaakaar naa ci showbiz macha allah kon rek euh, ginnaaw bi ñu jógee fële ca Gambie muy ñetti date macha allah tey nag ñuy raxas fële vendredi incha allah muy soo xam ne suñu tëcc la incha allah ñuy raxas fële ca Vogue incha allah di ci woo ñëpp di feetal Lions yi di feetal nga xam ne mooy euh, euh, victoire bi incha allah fële ca bokk ak Wally Ballago Seck kon maa ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah vendredi incha allah Karamba mu ngi ñëw vok waa Dakar préparé leen Karamba la Messi Jinne mu ngi ñëw Faramareen bi Wally Seck préparé coupe bi dañ déggoo li ma la waa Dakar nañ préparé Karamba mu ngi ñëw Dakar dinaa yëngal Dakar mm-hmm. dinaa yëngal Dakar de albadi préparé leen Wally waaram daan bàyyiwuma kenn na ngeen préparé karamba dina ñëw te dina yëngal foofu le messi day jiite jeex na kon sama gars yi maa ngi leen jox rendez-vous vog vog vendredi vendredi incha allah kon du yomb sama gars yi macha allah